bànneex bu rëy bi doon ko séddale waaw waaw pour l'instant ah, zéro zéro ci diggante Ceddo ak ah, Ayse Xayaana ah, waa Ceddo ñooy nañ ko mu yoon seet sa waaye gisu i fay mi ngi noonu mosala numéro bi côté Xayaan c'est le capitaine de l'équipe le numéro 8 attention Ousmane attention numéro 11 attention Pomme est là oh ñàkk na bal bi xool keneen waaye ñàkk na bal bi ba wuñu gars yi ñu koy lijjanti waaye ba tey demagul ah, Ousmane mi doon euh, tuus bal bi ñu cherche numéro 11 bi waaye jotu ko eh waaye numéro 11 Paris ah, coup franc waay eh Parisela ah, Baye Mbaye eh, numéro ni Xayane waaye Faye moo yar bal bi noonu di ko waaj a dóor coup franc la côté ASC Xayane côté ASC Xayane na bal Ah, biram आ, बिरम जाय में जे मम बकवा बिवाय जो काम कर जे बिजा अपना way बिवाय ko बाय wat ah numéro 9 yor na bal bi ñak nako c'est capitaine de tiedo ah mi ngi joue largement ah ba tay passe bi baxul numéro 12 bi mi ngi koy ñakante gi bu fay ah numéro 15 euh passe ba dafa reuy passe ba dafa reuy Faye tuus na bal noonu mi Paris mbëkk na Balde moo teg bal bi noonu jox ko numéro bi ah, Paris moo dégagé waat bal noonu ah, arbitre bi tiire na arbitre na tuus na ah ba tey ndam demul <laughs> ngi bërëm bal waaw ah, i fay moo de coup franc bi noonu ci euh, numéro 15 bi Ceddo dañ war a moytu coup franc yooyu parce que coup franc léegi gars koy dugal waaw délégation bi moo def euh, lu am solo ba mi ngi noonu di a diggante Ceddo ak Xayaar ñi ñooy joué noonu Paris moo yor bal bi da ko doon paas waaye baaxul bal bi euh, da ko jox Balde Balde jox ko numéro 10 bi numéro 10 ba nga doon cherché numéro 11 bi waaye amu ko numéro 15 euh, Xayaar doon bal bi ci tuuti ah ba tey ndam demul ndam dikul <laughs> ah gaa yaa ngi laale waaw ah arbitre tiré na faute arbitre nee na faute carton eh, numéro 3 waaw ah, numéro moom doon jox carton noonu parce que dana participer en jeu bal dal ko ci loxo gars yi koy encouragé. war ko ci biir match bi. ah numéro 9 ak numéro Après, euh, numéro 9, numéro 2, écarté by numéro 2 bi. Ah, Kofran bi dafa am cadre bi, Kofran bi dafa am cadre bi. Numéro 9 bi dorna bal bi. Ah, gol bi japp na bal bi. Gol bi dafa japp bal mu rechat ko. amna gaay mo di tax batay gaay dem gaay ngi jongante ndam demul ndam dikul ci diggante Ceddo ak ay see ah capitaine de bi moo doon bal bi noonu tax numéro 7 bi waaye ko am ah, bien corner ak bi yoon nee na

Attention. Oh, quel taquet de Ah, bah, le numéro 10. Son affaire entre euh, pommes. Il fait centre retrait. Euh, faute de main. Faute de main. Faute de main. Faute de de, numéro 8. ñi am ko si ñoom ñu nekk ci waa bi dirigeant rek ay costume. waaw nawetaan mu demee noonu. waaw sama caméraman. Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra ini? Abra mal, bagaimana ini? Abra mal, waaw Baye Mbaye moo laaj bal bi noonu pour dóor corner bi ba tey ndam demul ndam dikkul diggante Xayaan ak Ceddo waaw numéro bi bokk na bal bi ndam demul ndam dikul diggante Daga euh, Xayaan ak euh, Ceddo ba tey ba bi demoon na corner far amul jugal volet côté Paris moo dóor bal bi noonu reprise mu daal ci défenseur bi bal bi nag dafa xaw a bëri côté tànk ci diggante ci temps yi arbitre refeer waay refeer ñaari ñu xaw a xëyaan dañu xaw a tànk ca doom yéebal bi xaw a day xaw a doon problème Don't problem. mana? Aja sekarang, aja na siya may ya itu tayo yung balipun siya pasti balik sorte ka bang ilapan balik turap. Ketika kaya nak cedok kenn mooy door bal bi noonu coup franc te day fay oh là là te day fay ah. mais bal bi duggul dafa 6 mètres fay moo sa numéro 18 bi noonu bu mbokk bal bi léegi nga xaw a may cadre bi tuuti waaw ah, ceeb dañoo bal bi noonu di ko dawal ceeb dañoo bal bi noonu di ko dawal numéro 10 bi numéro 10 moo yor bal bi centre de retrait waaye baaxul défenseur bi dóoraan na bal bi mu génn foofu waaw Paris jox nañ ko bal bi Paris jox nañ ko bal bi dina ko defam déet waaw numéro 6 bi dafa dégagé bal bi mu dem na tous Jëriñ de Jëriñ de Paris moo daanoon waaye bu ñu leen ko joué jogol waaw Birame Ndiaye dégagé na bal bi Birame Ndiaye moo écarté danger noonu mu sol numéro 2 ASC Xayane ah touche euh, le numéro 12 numéro 9 sercé euh, capitaine bi def na coup franc ci euh, défenseur Xayane bi

na bal bi Ousmane waaw capitaine xëy na mbir mi téye bal bi dafa bëri parce que à chaque fois gars yi dañu cee xaar ne dañu cee xaar du ñëwee foofu. au franc way nga de. yéeg semelle ak jàmm gaañ na nga de. đặt ndax mën a football Allora eccoci là, vengo. Écarté danger. Côté Ndiaye, Ndiaye blessé waay. Ndiaye dafa gaañu, waaw Ndiaye tëdd na. You more dugal na numéro 7 moo dugal numéro 7 moo dugal 1 bi à dugal na Abi Azaro à 0 numéro dugal bal bi numéro 7 dugal bal ko non kii bi woon tool fële. tournoi bi amoon fële final bi final bi tamit noonu la. ñoo ah, kii la ki doon joué doon nañu fii tamit si entraînement. waaw doon nañu si nuyu entraînement. Sendou la moo booy Sendou yi ñoo la àndal. waaw ah, ba tey ah, diggante Ceddo Xayaan Xayaan moo dugal léegi numéro 7 bi ah, moo dugal bal bi waaw ba tey Birame Ndiaye moo yor bal bi noonu Birame Ndiaye ñàkk na bal bi numéro 10 bi yor na bal bi numéro 10 bi jël na bal bi numéro 10 yor na bal bi na dara ngi déclaré penalty waaye ko jógal football allez continue joue numéro 9 moo yor bal bi noonu côté Ceddo ñoo le maillot noir blanc Et xayaan moo le rouge blanc alors na tous Allons sortir à tous. Ah, numéro 16 mon game moo jéem a centré bal bi j'ai tout le euh, dem numéro 9 xayaat mi yor na bal bi ah j'en ai que numéro 7 numéro 7 da continue à balle, numéro 7 il y a toujours un ballon contre euh, Ryan. Euh, attention Cissé Ndow trouvé na numéro 9 bi ah numéro 9 bi téye na bal bi ma ngay xool solution ma ngay xool solution ma ngay xool solution doon na bal bi oh. ah xanaa dafa nag équipe bi kaw ah daf ko téye ci kaw daf ko téye ci kaw ba équipe bi pressé wul pour mën a génn jeu. waaw waaw Kodo numéro 7 kat na bal bi. Cation Balde lancé jeu de Toubab Dialaw kon numéro 8 jox na ko numéro 7 bi numéro 12 Cation Pomme ñàkk bi tey wàcce do ñël nañu bi wàcc réew na fa bal a refaire euh, côté yi fay c'est la deuxième waaw ba moo yor bal numéro 12. waaw waay li ma si jaay gàttal jaay. ñu ñu dem ci station Diallo. Ceddo way ay see Ceddo ba tey ah, Xayaan moo am 1 ah, but à 0 waaw ah, numéro numéro bi moo marqué au premier but contre Xayaan waaw ba tey Baye Mbaye moo nekk noonu jox na bal bi euh, numéro 11 bi waaye ñàkk na ko numéro 10 bi këf na bal bi Ndiaye topp na ko Ndiaye topp na ko Ndiaye bàyyiwu ko waaw ba tey Ndiaye nga koy sonal gaa yi nga numéro 4 bi Balde paas na waaye Birame Ndiaye da ci teg ah bal Balde moo yor bal oh, <laughs> et voilà Bataille. Euh, Ici, ñu ci euh, premier euh, mi-temps bi ci premier mi-temps bi ah mbas bi demagul fenn a but à zéro waaw ah, ba tey ah, ñi nga xam ne Baye Mass ñëw na fi ah, remise fi yu am am solo attention tête la kii oh loola tête la numéro dis rek numéro 7 direct gardien de but capitaine moom bëgg bal bi noonu mais góol bi daf ko jàpp góol bi daf ko jàpp góol baa ngi taaxilu lu xool gaay góol baa ngi taaxilu du xool gaay dégagé na bal bi numéro 12 bi yorna bal bi le numéro 15 ñango ni kay koy séddale ah, pom def na coup franc pom def na coup franc <laughs> ah tedd ifay ifay mbeuk na bal bi mu dem 6 ah, mètres tous kon ba tey waa Xayaan ñoo mëne 1 bi à 0 arbitre bi sifflé warna c'est trop ñu di leen jàngal nu ñu touché bal c'est trop tard ñu leen jàngal ñu touché bal waaw xayaan ñu touché bal bi noonu il fay touché na bal bi numéro bi mbëkk na bal bi numéro 7 euh, ba dooraan na bal bi euh, ba xayaan bal dama mbëkk bal bi noonu le numéro 15 et voilà faute de maire bi maire bi touché Baye Mbaye moo yor bal bi door na ko bal bi dem na ci reprise de Baye Mbaye reprise de Baye Mbaye bal avant à tous numéro 15 bi yor na bal bi gars yi koy saxatoo waaye am na ko Euh, numéro coup franc ci numéro 9 bi ah, pour l'instant ni temps bi xaw na neex mais euh, premier mi-temps yi moom metti woon trop ci gars yi ah, parce que après ñu mujj woon na arrêté jeu bi gars yi ñëw jël ndox après ñu démarré waat waaw ah, fa capitaine Ceddo euh, moom football bi capitaine Ceddo ñoo football a bal bi jox ko Balde Balde ñàkk na bal mu ci bàyyi mbay pom jël na bal ah, ba tey jeu bi posé wul par rapport euh, bi bal bi doo bi doo ko démarré numéro 10 moo téye bal noonu mu ngi jox numéro 7 ba gis na ko gis na ko waaw ah, numéro 15 ba xañ na ko arbitre nee na dara fa arbitre nee fa ba tey euh, numéro 10 ba nga tëdd ngi wax ak bi ba tey gère bi comprendre na ko a ah, ba tey gars yaa di doxal xayaan moo bi à zéro ñox na bal bi numéro 10 bi Njaay mbëkk na bal pom ma ngay chercher une ah oui ah oui ah oui arbitre on dit rien arbitre Paris moo yor bal noonu jox na ko Baye Mbaye Baye ngay waaj a dóor Baye Mbaye moo yor noonu ba tey sant c'est Baye ma bal noonu waaye dafa doon bëgg centré waaye bal bi ma touche 6 waaw gardien bi relance na bal bi jox na ko numéro 2 bi numéro 2 bi dégagé na bal bi pompe na bal bi Balde le numéro 8 on change de côté rapidement ah Baye Mbaye dégagé na bal bi jox na ko Ousmane Ousmane ngay cherché numéro 7 bi ñàkk na ko um, ah numéro 8 bal bi jox na ko numéro 12 bi gaa yi doxal gaa yi doxal. gaay doxal ñak na bal bi mbay ah, mbay dégay katana danger bal bi dem na ci bal de bal bi tan bal bi den wàcc na ko ma ngay xol solution jox na ko numéro 8 bi numéro 8 bi jox na ko numéro 6 numéro 6 nga seet numéro 12 trouvé na ko ba tey bal bi ñëw na ci bal de ah, numéro capitaine de numéro 7 ma ngay cherché numéro 10 bi ah Ndiaye mbëkk na bal bi bala demoon na ci bal dañ jeexagul numéro 10 bi yor na bal bi mu ngay lijjanti solution mu ngay lijjanti solution jox na ko numéro 18 bi ah ñàkk na ko ba tey bal mi bi numéro 8 bi yor bal bi ah numéro 8 bi joueur bu mag la numéro 8 bi am na maîtrise pour bal bi attention numéro 7 numéro 7 numéro 7 Dakhayane le buteur Dakhayane Ah, arbitre onde Ojo. Ojo. Paris. Paris qui a marqué le deuxième bim avec Andy Ojo. Mais à l'arbitre onde Ojo. Qu'est-ce qui se passe Il a des gens qui bavardent trop. Ah, numéro 7 def na lu am solo. Numéro 7 def na bi. ak Balde Balde joxoon na ko 18 bi ma ngay seet sa numéro bi am na ko Biram njaay Biram Ndiaye Biram Ndiaye Biram Ndiaye def na faute Biram njaay euh, def na faute en tout cas xayaan ñi ngi seen bopp euh, yor ay xale yu am jom euh, li ñuy football aussi tamit dal xel. parce que dañuy joué euh, day day day relance day gën a relance après mu dugg ci milieu terrain bi après après ñuy joué intervalle euh, le point de penalty ah ba tey euh, gars yi ñoo mené 1 but de jeu c'est 45 de jeu waa Ceddo ñoo am coup franc numéro door na bal door ba door baaxul. doon ko dóor baaxul ba tey gaa yaa ngi ci kawam ba tey gaa yaa ngi ci kawam une minute de de jeu ah <laughs> waage daanu na waaye eh, yuuxu na yuuxu metti dama yaakaar bi ko gars laal daf ko touché une minute de jeu waaye une minute de jeu waay joué nañu 45 euh, minutes xayaan moo mënee bi à zéro gars yi doxal gars yi ngay doxal wàcce dañoo yor bal bi ba tey ñu ngi benn bennal kan lay xool numéro 15 bi numéro 10 bi ah ñu ngi ko benn bal waajal nañu ko ñàkk ah Ndiaye Seck coup franc ngaay li ñuy def day neex trop waaye duñ ko faral di continuer Biram Ndiaye moo teg bal noonu Biram Ndiaye moo teg bal noonu arbitre bi

Ah oui, ah oui. ah gars yi la def neex na. ah mon père. jaajëf. et eh, mi-temps. Euh, On 1-0 euh, de l'ASC Xayane bi euh, wa ñu del ci siwaat rek ci deuxième mi-temps bi nga xamante ne diggante xayaan lak euh, ceddo euh, bi ñuy mi-temps sank xayaan mo amoon ben bi euh, bal bu démarré waat na ci digënté xayaan ak ceddo wa xayaan mo dégager bal bi non mu dem 6 mètres mu dem touche ah batay wa ciado ñëwaat bal bi ah touche nañ bal bi njaay mbëk na bal bi mu joko ko capitaine d'équipe ah tay ni wara kess mo yar bal bi noonu mu ngi mu ngi dawal ah, ñàkk na ko fay casé na danger waaw ah, ba tey bal ba ngi ci euh, loxo euh, Paris Paris euh, moo yor bi noonu numéro 11 ASC Xayane waaw Paris mi ngi trouvé solution mais amagu ko oh, Paris ñàkk na bal bi Paris ñàkk na bal bi waaw ah, capitaine bi jox na numéro quinze bal bi ma ngay tànn solution ma ngay tànn solution ñoom ñaar ñuy mujjee ni ñuy mujjee ah voilà. ah Moussa Ndiaye euh, ma bi noonu mais euh, waaye dafa def coup franc ci moom Birame Ndiaye mooy euh, dégager bal bi Birame mooy dégager bal noonu waaw ba tey waa Ceddo dañoo yar bal bi waa Ceddo yar nañ bal bi ma ngay seet sa profondeur waaye amu ko Birame Ndiaye ak waaye ñu ngi dàqante Birame Ndiaye Birame Ndiaye Aoi biram Ndiaye ñàkk na bal bi parce que dafa doon protéger gars yi ñëw ci kawam mo pour mu am touche mais ñàkk na ko ah touche ya pour Bayel Diallo touche pour Bayel Diallo le numéro 9 c'est le numéro 8 numéro 8 bi doon jéem a centré bal bi waaye eh, dafa dem corner jotul jàll jotul ah, jàll remplaçant côté Aïs Khayane waaw ah, Ndiaye mooy ñëw noonu ah, Guèye moo koy remplacé Ndiaye mooy ñëw noonu le numéro rentrant numéro 13 sorti numéro 3 ah premier changement côté Xayaan ah, waaw Moussa Ndiaye moo génn Modou Gueye moo dugg waaw ah, Modou moo looy yëkkati danger wu noonu waaye waaj dóor ci bal bi góor bi jàpp ko ba tey euh, oh oh oh góolu Xayaan mi li mu def sànq dara wóoru ci. Ngolo ay say xayaan li mu def sànq dara ci parce que dafa relance waaye relance mu def baaxul gars yi ñëw teg ci waaw ba tey gars yaa ngi ci doxal ba tey ngi doxal tuus waaw tuus bal bi noonu tuus mi ngi la tànk Paris Paris jox na ko pom Paris dawaat na numéro bi numéro 9 bi ñuy def wa ah, du def na ben profondeur attention ba tey Paris yor na oh oh eh, bal bi Paris yor na bal bi mu nga trouver solution mais amako ko ba tey amagu ko oh là là oh là là Paris garde trop de bal centre de trait numéro 2 bi tekki tank mu dal Serge Wadi Faye Serge fay ay fay mo yor bal bi ba tey fay mo yor bal bi tay tey wëndaalu amako solution amako solution ah oui Ah, capitaine bi kii bi capitaine dégagé na bal bi mu dem ci euh, milieu terrain bi ba tey euh, pompe récupérer bal bi waaw le numéro 18 mais tamit écarté na danger ah, bal bi tey euh, jeu bi posé gul parce que li ñuy dégagé bal bi moo ëpp ba tey jëluñu responsabilité pour teg bal bi ci souf ñu jouer waaw ah, ba tey kooku daal moo xamante ne ni moom moo ko fiy def le numéro 8 de Bel Diallo waaw coup franc te Baye Mbaye changement. côté Bayel Diallo 18 euh, Sotra 18 moo génn 14 moo dugg 18 moo génn 14 moo dugg ba tey gaa ngi doxal waaw ah, Modou mbëkk na bal gay Gaye mbëkk na bal bi waaw Modou Gaye moom mbëkk bal bi noonu mu dem ah, mu dem tuus ah, ba tey gaa ngi jongante xayaan ma mën a 1-0 xayaan Attention, intention euh, coup franc bi ne suuf ba Modou Gueye yaa ngi sa danger côté ASC Xayane ci Baye Mbaye coup franc ci côté Baye Mbaye numéro 8 bi mu ngay wax arbitre bi Ah, ñu ngi seet solution pour euh, trouver l'alternance mais libéro bi dafay écarté danger libéro ki ay écarté danger ba tey gaa ngi doxal ba tey gaa ngi doxal ah corner ah, côté Bayel Diallo ah de centre de encore. gars yi ngi doxal gars yi ngi doxal corner door na bal bi way dafa dal ci numéro 10 bi deuxième ballon deuxième ballon oh direct gardien mooy Cheikh position way no ko attention, attention. ya coup franc. Biram Ndiaye def na faute eh, Modou Gueye mi ngi eh, wax ak arbitre bi parce que bi coup franc bi amee élément yu ñëwee intention bi mu c'est pas eh, normal durna balbi dorna balbi balbi balbi balbi. balbi bal bi Obey danger kapten bi dolli nako Sekhayan Nabi Tadal lay Sekhayan tey balbi, ah, balbi balbi. balbi balbi bal balbi ñak nako numéro 14 bi jël nako ci mom ah numéro 9 bi numéro 9 bi defal nañ ko balbi bi wa balbi, balbi balbi, balbi balbi. balbi bal bi tey na bal bi ma ngay dribbler ma ngay dribbler xol na solution solution lay set solution lay set oh ñak na bal waaw ah, Modou Gueye mbëkk na a bi ah, numéro 14 ñu xool solution ah, ba tey amul solution ba tey amul ngi xool solution mais ba tey amuñu ko. waaw ba tey uh, ba tey ba tey gaa yaa ngi doxal ba tey gaa yaa ngi doxal diggante Xayaan ak uh, Bayel Et voilà, c'est terminé. Khayane a uh, battu à Bayel 2 buts à 0. Khayane qui a battu à Bayel 2 buts à 0. La deuxième édition. Le deuxième doigt qui a marqué, qui a, um, qui a marqué le deuxième but. numéro 9 qui a marqué le deuxième but. Et voilà. Oui, le coach euh, principal. Ndong. Ndong là, Mbaye Touré. Mbaye Touré. Mbaye, Mbaye. Mbaye Touré, Mbaye Touré. Coach, kaay ba pare Ah, coach, félicitations. félicitations. Euh, coach, euh, premier match euh, euh, contre Bayel Diallo, nga a 2 buts à 0. Euh, coach, cette équipe ak équipe waaw Nous avons ziar ziar di Nous avons di Nous avons joueur yi di Bouba. bu vraiment satisfaction bu vraiment parce que ce n'est pas facile. en moins de moins de un moins trois semaines nga préparer si match après terminer si une équipe euh, une grande équipe de Ceddo door ko 2 c'est pas très facile. Euh, coach euh, Mbaye Mbaye Mbaye Ngom du courage et félicitations Mbaye Touré Mbaye tey nan suba ñu lay ziar waaw boo tey dañu ñëw jël les trois points mais dañu si match bi moo baax parce que dañu yor ay jeunes joueurs boo gisee boo gisee équipe bi si nekk dama ñett gis na ñëpp ay gone nañu quoi dañu ñëw dugg si match bi bon quinze première minute yi gars yi bi

est ce que tey euh, nga taxawoon déglu ko du woon kenn. ah bon dëgg la mais stratégie de jeu la rek parce que xam nga dañu li ñu liggéey bon ah match amicaux yu ñu def yëpp jàngat boobu la am te man xam naa adversaire bi xëyaan xam naa seen jour loolu moo tax ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw presse leen si kaw pour mën a teel a tàggoo ñoom si 15 première minute mais dafa am seen benn jour boo xam ne nii mosuma ko gis mooy numéro yi seen bi ku gaaw ku mën a daw kooku defe naa ne moo ñu posé tellement de problème avant ñu rectifier ba mën koo contrecarrer bon gars yi gars yi jël nañu but quoi bon bon loolu mooy loolu mooy bi bon dañuy defar waat rek parce que championnat la première match la on a on a mal joué aujourd'hui ah on on a mal joué parce que li des deuxième trente dernières minutes ñu xawoon gis ci tuuti bi ba deuxième mi-temps bi on mal joué. dañuy dem liggéeyuwaat defarwaat préparé benn match parce que waaw y a des deux équipes euh, dama gis équipe bi fi nga xam ne euh, euh, responsabilité pour bal bi jouer ballon mais état terrain bi nag permettre ko nga produire saison bi parce que dafa taw y a des accident terrain bi ay un peu accidenté jël yenn risques yi mais deuxième mi-temps bi ñu rectifié booy yi si bu am boo boo bu baax booy yi joué joué ay def nañu ay combinaison

Informez-vous juste sur Dialao avec votre nouvelle application mobile Dialao Actu. Ce n'est pas tout. Dialao Actu vous réserve un panorama d'actualité avec des infos sur la culture, le e-commerce, le tourisme, le sport et divers. Si vous trouvez mieux Ayen Dialao, informez-moi. Alors, rendez-vous sur Play Store pour télécharger votre application Dialao Actu. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et bientôt sur App Store. à plus, juste un clic pour vous informer.